ñàkkum jën ñi jamono ji sonal lool jeeg ji nekk ci dëkk bu sell bi ji Touba waaye jaaykatu jën yi jamono ji boobaak léegi juróom benn weer la dëkk bu sell bi ji Touba daanaka kenn xawee su fee gis aw jën wala boo ko gisee itam prix ba dina kawe lool ba génne ko ci ab dépense na nekk luy metti ñun ñuy dem géej moom lii faas lan ma woon démb bu jëli ma ko waaye dafa seer moom kees ñu ngi ko jënd fukki junnee ñett soo ko fay transport kalandoo ngay jël fay ko 25000 soo ko ñëw fii di ko jaay mu léeg-léeg mu am ñu am sa dara de waaye léeg-léeg fan yi moom moom jaay noonu rek jël bukki suuree bukki daal la def rek waaw Touba moom am na jafe-jafe jën yi di fësal ne ñoom bis bu yàlla sàkk dañuy jaay jën yi waaye itam dañu cee perte ndax coxeur yi njëg ga nga xam ne dañu koy teg ci jën yi rax ci dolli itam taxi yi nga xam ne dañ leen koy teg ak transport bi buñ ko ci génnee jën yi dootul amati benn bénéfice gis nga ko nii rek boo la wax bay bëgg a dégg baqate na bàcc ak ronga ne basar <laughs> ndax seeraay gi dong ak galas gu bari jën wi noonu ko jëndee juróom-ñetti junniy woo ko mu tab tas dong la ànd ak galas méttee méttee métti bu ñu wàllee galas gi daanaka boo ko xoolee doo dese lu mat téeméeri jën te noo ngi nii ñin koy jaay ngi bëgg a dee nun ñu koy jaay noo ngi bëgg a dee ngir yàlla jëmi sëñ Tuubaa nañ ñu dimbale ngir jëmi borom dëkk bi dina dindil galas gi bam sat wecc ak dina fay 1000 francs ci kaw tali bi ah bi daal métti na lool li ñu teg sart bi ñu teg métti na jën yi seer na noo ngi bëgg a dee sonn nañ ñiy togg sonn nañ tas 200 mërëg 300 te galas kese lañ jaay. la. yii noo ngi koy jaayee 200 mu def tas mërëg bi noo ngi koy jaayee 300 te du tee bi may wàcce fii démb damaa am ko wàññi ko ñëw ma barki démb bi may wàcce fii barki sëñ Touba junni bi woo kongu laa manqué doog a ñibbi te bu ma dundee fay ka bu ma dee saay bokk danañ ko fay lii moo metti nañ ñu dimbale ngir dinu dindil galas gi bokk. nga xam ne ñooy dem kati marché ñoom jamono ji jaaxle lool képp koo xam ne ni bëgg nga cee togg ceebu jën ay jafe-jafe daal di lay dikkal jamono ji jaaykati jën yi ci dëkk bu sell bi ji Touba ak ménagères yi maanaam ñi nga xam ne ni ay sëykat lañ di dem marché jamono ji di yuuxu wallu metti rek metti rek ci ñun gis nga ko nii boo dépasse boo yor boo ko boo jëndee jën jeexal doo xam nooy def benn 200 la ma ko jaay ak ñaar fukk euh, ak juróom mi ngi nii war cee jënd ñaar maa ngi ni war cee jënd juróom benn jën bëgg a nekk daanaka liibaru yàpp boo ko xoolee te du ma arrange jën kay fii ne moo sonal jéegi Touba moo tax daanaka jéeg bu ci ñàkk jom sax daw nga tukki daa tukki ndax euh, dépasse bu métti. di sàkku ci nguurug Sénégal rawatina jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum napp mi di Omar Gueye ngir mu jàppale diwaan yi ngir ñu mën a gën a am jën yu baax waaye tam ñu régulariser li nga xam ne moo jëm ci wàllum napp mi ci réew bi Sénégal. ah xanaa ñu fexe ba jën yi gën a yomb rek te kooku yi jaay jën weeti moom yërëmun ah, ki ñuy jaay ñiy ñiy détaillé moom ñoom daal ñoom ñoo aj jën yi lool kooku yi daal moom ñoom ñoo aj jën yi moom ñoom daal moom yërëmun